jërëjëf mbokku internet yu safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen ci émission yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di def ci ñi nga xam ne dañuy am problème duñu am kenn koo xamante ni dañu ci waxtaanal loolu nag sabab bu ñu amee zaaru jafe-jafe yu mel ni seen xel ci li muy njëkk a dem mooy giseek waa wasaare wala déggante ak ñoom bu ko defee nga daal di génnee li nga xamante ni moom moo nekk ci sa xol gannaaw fan yee ñu génn nag tourné woon nañ fi benn émission boo xamante ne ni ni benn xale bu góor bi nga xam ne dabe fane rek ci ay kàddoom benn mère moom moo ko daal di violé loolu sax li ñu koy gis ci réew mi nekk na loo xam ne lu néew la viol li ci ëpp ci côté xale yu jigéen yi lay nekk waaye cas bi nga xamante ni tey moom la ñu indi muy xale bu góor bi nga xamante ni dafa wax ko ne rek benn xale bu jigéen wala sax benn mag moom moo ko daal di violé moom nag fi mu nekk dafa xaw a soree lool ak fi nga xamante ne ni mu ñun foofu la ñuy defee émission bi déplacement bi du yomb loolu moo tax nag ñu woo ko téléphone ngir mën a def ak moom li nga xamante ni moo di émission bi mu daal di wax ci viol boobu nga xam ne moom la daal di dund naka la ko dundee fan la ko dundee ak kañ la ko dund loolu lépp ma déggante ak moom téléphone dina ko daal di expliquer yéen tamit bu ko defee ngeen daal di koy jàppale indi seeni xalaat ñu indi suñu xalaat ñu boole xalaat yi mu doon benn ñu dal di koy jox moom ko si mu daal di koy jëriñoo ndax li nga xam ne nga dund ko mu metti lool doo am kenn koo xamante ni di nga ko mën a partager ak moom amoo ci yaakaar fenn fudul wasaare ñun tamit bu boobaa dinañ ci def suñu kéem lay kéemtalaay kàttan daal di defal la vidéo dugalal la ko askan bi indi seeni xalaat bu ko defee yow tamit nga mën a vider li nga xam ne moo nekk sa xol damay déggante ak waa ji rek bu ko defee mu daal di ñu indil ay leeral ci mbir moom mu naka rek la demee Eh, jërëjëf mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee rek maa ngi ak xale bu góor bi nga xamante ni moo daal di dundoo mbir mi dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bi di wasaare bu ko defee ñu daal di dugg si waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. bi naka la. man Malick laa nga expliqué ñu rek exactement li nga xamante ni moom nga dund suñu la bàyyee nga nuyoog mbokk internet yi ba noppi. d'accord d'abord maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. Euh, di leen di leen euh, jaajëfal yéen tamit parce que yéen a ngi def liggéey bu am solo. merci beaucoup. waaw bon affaire yi comme ni ma ko waxee woon kee euh, seen soxna si. Mhm. c'était vacances yi jàll. Mhm. man jeune laa 17 ans laa am. 17 ans. waaw. ok mais école tëjee man maa ngi jàngee fii côté Louga daal. Mhm. damay ñëw vacances Dakar pour pour liggéey nga xam ba école tëjee di am dara. léegi daa benn jour nag vacances yi jàll damaa ñëw. ma ne par exemple fekkee xam nga ay booy ñoom dañuy soxla ay booy yooyu noonu. waaw pour liggéey. Mhm. léegi man ma def chaque jour rek ma dem di wër wëri ma xool kër yi dem di wëri benn jour nag ma ne naa dem ay côté Ngor yooyu noonu. Mhm. ma dem di wër di wër di wër ba si yàgg ma gis benn kër gu kër gu xaw a rafet daal. Mhm. man du ñàkk ñi xanaa di ko soxla ma dugg foofu laajte. fekk fa benn benn benn daam. Mhm. mu ne ma mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko man bëy laa bëgg. Mhm. liggéey ay ménage yooyu mu ne ma ndax mën nga loolu ma ne ko waaw parce que daan naa ko def chaque vacance. Mhm. daam bi nga fekkoon ci kër gi. moom kese la moom moom kese laa ko fekk muy seetaan ay séries yi musique ak yooyu noonu. ma ñëw mu ne ma fekkee mën nga ko man amoon naa jànk mais jànk bi ba mu demee tabaski ba léegi ñëwaatul. dëgg waaw mu ne man par vacance ngay liggéey wala da ngay liggéey mën nga liggéey kii bi at bi yëpp ma ne ko noonu vacance rek parce que man élève laa. Mhm. mu ne ma d'accord mu ne ma léegi yow da ngay day xëy si waat suba. Mhm. moom sax moom moom sax moom moo génnee deux mille francs jox ma pour ma passage bi waaw parce que quinze sax laay jógee. Mhm. daam bi mag la wala xale. non mag la moom. mag la ay atam boo ko xayma. Euh, ay ay quarante ans jàpp cinquante ans yooyu noonu. d'accord euh, mu mu da ngay xëy ma teel a xëy si euh, ñëw mu mu jënd fekk fekk naa mu jënd bagage yeeg yooyu noonu yëpp. Mm-hmm. bagage yi ngay defaree euh, kër gi. Euh, waaw bagage yi mooy bale yeeg yooyu noonu xam nga. Mm-hmm. mu ne ma dangay njëkkee douche bi ma xool ndax liggéey kii na. Mm-hmm. léegi man maa maa ngi maa ngi ci douche bi di raxas takk samay écouteur di déglu. ba si yàgg moom mu ñëw moom ba mu ba mu ñëwee mu ngi waddoo ab sarbet waaw man tamit xooluma ko maa ngi ko ne liggéey mu ne ma aw ah, comme genre daal ndax yaa ngi liggéey góorgóorlu daal. xam nga mu ne ma boo paree nga nga nga ñëw sama néeg ñu waxtaan parce que l'histoire de faire connaissance. Mm-hmm. ma ma pare ménager yëpp pare ma ñëw foofu noonu mu ne ma naa toog ci lal bi ma ne ko noonu baal ma toog ci fauteuil bi rek. mu mm-hmm. insisté ba ma toog ci laal bi. Mm-hmm. mu ne ma léegi comme que liggéey nga man daa am lu ma bëgg nga defal ma ko. boo ma ko defalee man man naa la neexal. ma yaa man maa ngi yaakaar ne beneen liggéey la encore. ma ma ne ko man moom wax dëgg fa neex yàlla woon nga ma mbaax boo xam ne loo bëgg naa la ko defal moom beneen liggéey bu mu munti doon. Mhm. ma ne ma est-ce que bii di nga ko est-ce que di nga ko nangoo def ma ne ko waaw. léegi mu mu ne waxaa ma ñëw mu dem indi ma benn jus mhm. xaw ma was la xaw ma daal. bu koy xat. Mhm. léegi man mu jox ma ma naan ji bi ma ma kaa naan parce que dama dama da nga doon forcé. waaw mais ba mu ko naanee. Mhm. pour ma jóg sa problème la. Mhm. pour ma jóg sa problème la. xamee woo ma ko moom. Mhm. xamee a hmm? a naanee. foofu laa a naanee a naanee. ok d'accord mu ko ngi mu ne ma mu ne ma est xam naa da ngaa sonn. man li ma la perte perte ma conscience maa ngi maa ngi xàmmee lépp. Mhm. ba ma tëddee moom moo gis ma kiiw sarbet bi man ma comprendre parce que histoire yi daan yu mel noonu. Mhm. mais man bëgg ma njaaloo. Mhm. te te te te daan daan bi tamit euh, daf ma commencé menacé mu ne ma da ma may defal li mu bëgg sinon euh, problème mun naa la indil fii problème. dëgg la. waaw parce que yow déggoo fi nitu kaw nga te yéen yomb ngeen fee indil problème. mu ne tamit. waaw te yomb ngeen a indil problème. waaw d'accord. Mm, comprendre nga. comme ça daal nee nee na ñun moom xamuñu ay biir ak yooyu noonu xam nga. Mm-hmm. léegi man ma gis mu commencé mu jël loxoom bi teg ko sama awara bi. Mm-hmm. man wax dëgg fa ne yàlla maa tiitoo nag mënu maa wax dara ma ne ko man duma def yooyu noonu ma waat ak barki Serigne Babacar Sy ba sonn mu ne ma danga koy def. mais bi mu la bi mu jëlee loxoom teg ko ci sa awra jëm nga yëngatu jëm nga bañ jëm nga wax wala dara. jéem naa bañ mais saa yu ma waxee mu ne ma boo boo kiiwee ma indil la fii léegi problème lii la ma wax. Mm-hmm. te bu la fi mu ne ma sa mun na la fi tëj lu ëpp mois sa jàngay yàgg ko lépp. Mm-hmm. say waa kër xam fan nga nekk yooyu man tamit ma tiit. Mm-hmm. ma ne ko waa léegi bu ma bu ma paree man dootuma liggéeyaat. mu mu ne mu ne ma waaw waaye li ma la waroon jox ci weer bi man naa la ko jox léegi. ok yaa moom mu fooyee ma. ba pare mun menacé ma ne ma boo ko waxee yow yaa ci am problème. mu fowee la ndax fowee bi daf la fowee ci loxoom wala dafa yegg sa kaw wala nu mu demee. yegg non yegg na sama kaw. yegg na sa kaw. waaw te lépp moo ko daan defal boppam parce que moom woon kaw. kon moom moo féet moom moo yow si suuf rek nga feete moom moo doon def mu doon def yëpp femme bi. waaw waaw. Hmm. man maa ngi doon te pour hmm, bi muy seek ak yow nga doon jooy. waaw ça veut dire moom li mu doon def yow àndoo ci woon. non non neexuma woon neexuma. ok ndax benn yoon la def ak yow wala dafa def ak yow nga toogaat foofu mu essayé waat wala. non non parce que parce que xam nga euh, premier jour bi. Mhm. dama mel na par exemple ay ay midi yooyu noonu laa pare quoi. ay midi. mais waaw ay mais li ko commencé midi moom ba ba heure 17 heures. ah moom moom ma maa moom ñu ngi tëj ci néeg bi. midi ba 17 heures. barki alxuraanul karim. te loolu lépp ndaw si mu ngi sa kaw wala. pare woon na. loolu yëpp day def day def ba heure bu bu ko neex mu noppaluwaat nekk foofu def seen yi yi yi yow ndekete nii nga mel nii nga safee xaw ma la incomprendre. Mhm. ba di yàgg man ma jàppoon naan man dee naa ba pare. Mhm. mu ñëwaat. ba mu ba mu pare moom. Mhm. maanaam loolu su ma ko xaymaa mat na ay deux heures wala trois heures de temps moom ndaw si ñaata yoon la na yegg sa kaw kon. yegg na sama kaw lu ma ñetti yoon parce que day day day yegg fooy ma ba pare ma koo xam nga. lépp la daan def. Mm. lépp la daan def. mais loolu lépp yaa ngi ci kawlal bi yow jugoo jéemoo yëkkatiku. non non non damay naan ndax sonn nga xaaral ma joxaat la nga naan forcé ma ko am lu ma joxaat ma forcé ma ma naan. Mm-hmm. ay xel ay boissons yooyu noonu yëpp daal moom daa def daa pare pare woon lépp. Mm. mais saa bu la joxee rek naan nga. non damay naan moom parce que parce que daf ma daan menacé. daf la daan menacé. te xam nga xam nga boo nekkee ñooñu ko waxee yow nga jógee par exemple fii nii mu ne la mën naa la indi problème man yàq jàng bi sax moom gi doon tiitloo. Mhm. parce que na ne mën naa jiiñ fii dara viol wala dara ñu ñu tëj la ci trois mois sa jàng yow day yàqu. Mhm. waaw ba ba ma pare moom moo ma jël ci otoom. Mhm. yóbbu ma ba ba kii nii ah, VDN Sacré-Cœur. waaw. si moom mu bàyyi ma mu jox ma mu jox ma kii trente mille franc yi. mu jox la trente mille mu waroon laa fay ñaata waaw ah. mu waroon laa non weer weer bi trente mille la ñu waxante woon weer bi trente mille ngeen waxante waaw man tamit ba ma ko joxee mhm. ba ma ñibbee feebar naa feebar naa ay fan. Mhm. ay fan dégg ma ñu may laaj lan la lan la man tamit nangu nangu ma ko wax. Mhm. da ma gis kii di wax histoire bu mel noonu ma ne. naa ko ko expliqué mais ñu bëri ñu ngi koy dund vraiment. Mhm. te man loolu loolu bokk na ci li ma gën a metti sama àdduna ba léegi. Mhm. wallaahi lazim. d' accord huit heures ba xaw ma midi ba dix sept ndax bi nga noppee yow mënoon nga dox pour yegg sa kër. non non nga déposé wala. non non non mënu dox de sama sama kii moo doon metti sama sama abdoo yeeg yooyu noonu. Oh. moo doon metti. ok mënu ma mënu ma sa taxaw. Mhm. parce que ba ma demee même même euh, kii euh, oto bi ma yëg. waaw. waa mujjee jël taxi. Mhm. tax même taxi boobu noonu mu ngi ma daan wax xanaa da ngaa feebar nangam nangam ma ne ko oui damaa feebar. Mhm. mais mais nag ma ko waaw mais waxuma ko woon loolu ko loolu la ko mhm. waaw d'accord femme bi xanaa dafa nekk femme yu pata yooyu wala ku ndaw la wala nu mu demee. non moom moom boo boo xam nga xam nga euh, sumul mi ngi joué bete bete. exactement ñoom ñoo gi dañoo nuroo. ñoom ñoo tolloo. waaw noonu lay tolloo ba pare ñoom dañoo nuroo mais xam naa du moom. Mhm. dañoo nuroo. noonu lay mel exactement. d' accord ndax boobaak léegi dem nga ci hôpital yi xool sa yaram ba xam wala. non non ma de moom parce que ba ma ba ma feebaree damaa dem pharmacie. Mhm. jënd ay paracétamol ñëw toogaat. Mhm. parce que rusoon naa dem feneen di ko waxaat ak yooyu noonu xam nga. loolu la woon. d' loolu kañ la kañ la woon ban ak kii la woon. vacance bii jàll vacance bii jàll scolaire. vacance bii ñu passé nii. waaw. ban ban la woon samedi dimanche lundi wala. Ah, non non non la xam nga lundi ngay gën a kii xëy quoi. Mhm, lundi ngay gën a xëy. waaw. Mhm. d' accord la quoi. d' accord mhm. léegi demoo tamit police ngir def plainte wala def leneen. non non deewuma de moom. parce que parce que parce que daam bi daf woon ba en sorte que man damaa yaakaar même bu ma demee police wax ko waaw loolu moo tax. waxtaan nga ci ak say waajur à ñun ñi nga siy waxtaanal. non non non waxuma ci kenn. waxoo ci kenn. Mm-hmm. ah samay am na yenn xarit yu ma ko wax daal. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord booba ak léegi naka nga koy dundee ndax yomb na ci yow mu ngi des ci sa xel ba léegi wala. non non loolu loolu loolu métti na moom vraiment métti na ma. parce que parce li ma daan wax kaw kaw nga. dinañ la mën di ngeen yomb a ak yooyu noonu. Mhm. maa maa ngi naan lii bu doon tey mënumaa dugal te dinaa fexe ba du ko def. Mhm. loolu moom rëcc naa ko moom wax dëgg fa neex yàlla. Mhm. parce que jóguma woo jóguma woon di wuti pour loolu. pour loolu. d'accord moom bi mu paree moom ndaw si lan la lan la la wax lan la teg ci say loxo. moom jox jox na ma trente mille. non lan la la wax maanaam yan kàddu lan la. non non wax na wax na ma ko. genre maa ngi jéggaloo ak yooyu noonu xam nga. mu ne moom moom jëkkëram nekk fi. Mm. daa tukki. Ah. Italie sax la ma wax. ah jëkkëram dafa voyagé. waaw dafa voyagé. Mm-hmm. loolu sax la ma wax. ok yaa ngi mm-hmm. mu ne ma nag mu ne ma nag li ma la ci tegal wax dëgg fa ne boo demee tey fenn di ko jéem a wax wala. Mm-hmm. yow yaay des parce que man am naa xaalis mën naa défendre samay bopp am naa ay avocat yow yaay des. da laa menacé daal. waaw genre menace la kay. loolu la ma wax mu ne ma mu ne ma tey mm, mun naa ne dafay ñëwoon di sàcc wala di a violer ba te tegal na ma si mun naa gaañ sa mun naa sa gaañ sama bopp ma ne yow yaa ko def. Ah, mooy loolu bi nga nekkee ci biir kër gi. waaw bi mu la nee nañ nañ ko nañ ñu ànd nañ seq nga. voilà ci la la menacé boo ma ko def te boobaa tamit yow yaa des. Mhm. d' accord ah. la première fois ngay def li ni mel wala. c' la première fois ma def loolu waaw. Mhm. wax dëgg fa neex yàlla. Mhm. c' la première fois a def ko. lan moo la poussé pour nga génn wax. pour ma génn waat parce que daf maa metti mhm. damaa rëccu lan moo tax man lan moo tax man man tamit fayuma pour genre jéem kaa indil problème wala porté ko plainte. waay waay. voilà loolu moo tax mu metti ma. Mhm. d'accord boobaak léegi ah. demoo hôpital xalaatoo tamit ndax mën na la indil benn feebar wala lenn loo xamante ni ndaw si am na ko mu war la koo indil. non wax dëgg xalaatuma parce que jéemaa non non jéemaa dem hôpital parce que dama ne woon bu ma fa demee euh, genre rus naa rus naa dem fenn daal di ko wax. Mhm. waaw. d'accord di ko wax. d'accord ndax boobu bi nga paree ci nga ñibbiwaat sa dëkk wala di nga toogaatoon nga fii Dakar pour liggéey. non non toogaa toogaat toogaat naa fii. Mhm. Euh, ba ba xaw a tane toogaat naa ay quatre jours yooyu noonu. Mhm. ba xaw a tane. ok léegi ma ma commencé beneen liggéey. nga commencé beneen liggéey. waaw gisal ci benn laar ba bu bu nekk Kër Massar. Mhm. Medina ci terrain bi noonu. ma dem foofu noonu di liggéey mais mais affaire moom jàpp na ma ay fan parce que sawar sax defuma ko. sawar defoo ko. non non non. gisante waatoo waatu leen. non non femme boobu laa gëj côté Ngor kay. boobu nga gëj côté Ngor. Hmm, hmm. d'accord boobu laa ko fi. Hmm. ba message booy lancé jëmale ko ci góor ñi ndax gis nañu instant yi ñoom li ñu koy dund genre viol yooyu moo ëpp ko jigéen ñi li ñu koy dundu jamono ji. man daal message bi may lancé bépp góor. Euh, gis nga quelques quelques minutes de plaisir. bu mu la bu mu la bu mu la yàqal sa parce que tey loolu loolu man mënoon naa cee jëlee tey par exemple femme bi bu fekkoon daa am sida wala beneen feebar. Mhm. mënoon naa ko ko see jëlee. dëgg la waaw li may naa si képp daal bu leen liggéey indee foofu noonu Dakar. Mhm. wala muy feneen def ko. dëgg la mais tamit dafa dafa yombut a échappé yombut a échappé parce que dañ lay menacé en telle sorte que yow da nga naan kii li mu wax ni fu leer la ko teg man bu ma demee man maay des. Mhm. waaw imagine nga nekk am 17 ans yow Dakar nga boo demee yooyu yaa des est-ce que di nga dem. déedéet. doo dem. waaw mhm. ah, te mosoo dem police mosoo kii man ñëpp porter plainte sax xalaatuma ko woon parce que dama ne woon bu mu porter plainte man maay des. nga yaa des. Mhm. ndax moom la menacé woon moo tax. Mm, li ma menacé woon. damaa mhm. menacé woon. d'accord ndax femme bi. bi ah. muy sekk ak yow jox na la leen loo protéger woo wala joxu la dara. joxuma dara de. ok. moom à part la jox nga naan daal joxu la leen loolu. à part à part loolu noonu xanaa ay noppaloo xelliwaat yi jox ma naan ma naan la hmm. bul jooy yu xanaa neexut ak yu kenn xamul la. Hmm. waaw loolu lépp moom la ko doon wax. waaw mais yow yëgoo woon plaisir ci femme bi. man moom man moom maa maa ngi pour moom sama aduna yàqu na maa ngi daan xalaat leneen. ok moom daal moo fa nekkoon di def ay yuuxoom ay seen yu xaw ma. Hmm. voilà. d'accord. d'accord kàddu gu mujj gi lan lay doon lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax ñi nga xamante ni moo di jigéen ñi nga xam ne ñu ngi koy faral di def seen moroomu doom yi xanaa di leen jaajëfal d'abord ci liggéey bi ngeen di def. Mhm. ba pare di wax euh, képp ku koy def. yaa ngi bu dul tey di di di suba. Mhm. parce que parce que mënoo à nit ki xamoo xamoo sa ban feebar la am wala. Mhm, dëgg la waaw nit moom euh, loo mënti def amoo ci bis di nga ci mës am bis. dëgg la. waaw parce que kooku kooku noonu bu ma tey mënoon a dem ba xamaat fa la nekk. Mhm. jaral na ma ko porter plainte même fekkee damay des jaral na ma ko porter plainte parce que metti na. Mhm. waaw te bari na ñu koy dund tamit. dëgg la bari na ñu koy dund. Mhm. waaw en tout cas merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup. merci ok. jërëjëf mbokk internet ci doon safoo di seetaan site bii di wasaare nii lañ leen ko waxee tey ni ngeen ko doon gisee yaakaar naa dégg ngeen wax ji ni mu demee xale bu góor bi di nga xamante nii dafa jóge woon dëkkam ñëw file vacance dem ci benn kër di fa wut liggéey pour liggéey yi nga xamante nii góor yi ñu ngi koy def maanaam booy nga fa raxas def yépp bi mu demee dajeeg benn xale bu jigéen wala sax mag bu jigéen boo xamante ne ni def ko wax ka ne rek mën na ko jël mu dem di ko liggéeyal ko ci raxas douche mu fekk ko foofu nekk ko boo paree nga ñëw ñu waxtaan ngir gën a xamante bi mu paree dem ca néeg ba nga xamante ni ndaw si foofu la dëkk pour ñoom ñaar yaakaar ne waxtaan la koy doyee yaakaar ne gën a xamante la koy doyee yaakaar ne gën koo soññ ci liggéey bi la koy doyee waaye nag la mu yaakaaroon ak li am du benn ndax bi mu demee ndaw si dafa daal di xeelis yi jox ko mu naan ba mu naanees si boobu nag ci la jafe-jafe yi commencé problème yi daal di dugg ba ndaw si daal di ko tëddee tëddee ko nag ñetti yoon nga xamante ne dugg na fa mu ngi nekk midi ba 17h ci la ndaw si doog a pare kon li nga xamante ni dund na ko moom nag looloo ko jàpp jotul nag dem police jotul dem hôpital aussi jotu ci waxtaan ak ay waajuram ndax dafa am kersa di ci waxtaan sax ak nit waaye comme ñun waa Wassare la yaakaar ngir ñëw waxtaan ci ak ñun génnee ci li nga xamante ni moo nekk ci xolam comme li may wax rek fi mu nekk nii gis nañ ne cas yooyu dafa nekk loo xamante ni lu bëri la léegi ci réew mi xale yu góor yi nga xamante ni ñu ngi leen di yóbbu ci seeni kër yi jigéen ngeen yóbbu la ci këram wan la ne maa la ëpp xaalis wan la ne soo demee ci yoon yow yaa fay des wan la ne boo ko waxee tamit foo dem yow yaay am problème waaye man duma am problème ndax am naa xaalis ndax ki nga xamante ni say borom kër dafa daal di dem bitim réew daani doolem bàyyi la file ngay wër ay xale yu jigéen yoo ay xale yu góor yoo xam ne dañ leen di yóbbu sa kër ngir tëddee leen loolu tamit nekk na loo xamante ni lu doy waar la kaa baa ngi noonu yéen a ngi noonu yéen a wax seeni xalaat di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Al Amin sama caméraman bi di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké bu mag bi jaajëf